madame le ministre Ngoné Ndoye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax bu baax macha allah. nga doonoon ministre des sénégalais de l'extérieur tey nga jiite benn association bu tudd femmes enfants migration et développement communautaire euh, FEMIDEC ñuy waxtaanee migration ñu koy màggal tamit le 18 décembre euh, tey euh, ban jàngat nga def ci ndaje bi ak solo gi mu am. waaw ñuy sant yàlla bi ñu yàlla may ñu fekkee ren macha allah yàlla ñu fekkee at yu bëree bëri. jàpp naa ne célébrer journée mondiale ci bépp programme bu mu doon. Mhm. mooy def taxaw seetlu taxaw seetlu ci problème bi. Mhm. fan la ñu jóge fan lañu ñu toll lan moo ci des lan moo leeku mhm. yan jafe-jafe yu bees ñoo am yan bunt yu bees ñoo ubbeeku ñi woo pour ñëw jàpp ci fan la ñu toll ñun. ñi nga xam ne ñoom la ñu bëgg ñu jàpp ci seen jàmbur est-ce que toog nañu. muy <laughs> les passeurs rek yeneen. Mm-hmm. donc loolu et eh, jamono la boo xam ni pour càmbar loolu yëpp la. Mm-hmm. bi mu desee une semaine la ñu commencé di ci waxtaan. Mm-hmm. Algérie laa jóge ñu waxtaan ci yu demee noonu. ba dina mat weer ci loolu rek la ñuy waxtaan pour mën a rek jëmale kanam wàllu migration bi nga xam ne nag lu jaadu la pour économie réew yi. lu war a am la ci économie réew yi ndax loo mënul rek sa moroom a ko mën mhm. te loo soxla sa moroom a ko am mhm. kon forcément il faut que nit ñi di dem ak di dikk ak di jëflan tey jii euh, bu weesoo màggal giñ koy màggal ndax sentir nga ne Sénégal am na ay association certes yi nga xam ne dañ koy màggal gouvernement état euh, ñoo ngi jëmmal bés bi waaw jot naa benn invitation mhm. bu jugee ko ci directeur général des Sénégal de l'extérieur boo xam ne mi ngi koy màggal fële ci Ndar le seize démb dix-sept ak dix-huit suba mhm. pour mun a waxtaan parce que xam nga foofu ndar am na phénomène wiiri wiiri xawoon na fi ndar tamit ci biir géej lu bëri day am sax amoon na fi catastrophe bu benn gaal kon ak yooyu dëgg la xam nga dem tam fa nit ñi nekk ak fa muy xewee waxtaan am na solo. am na solo lool gis naa ne nag loolu def nañ ci euh, ci programme bi ne dinañ waxtaan ci seen biir. Mhm. brainstorming. Mhm. gis naa tamit dinañ ci ibbilee Bawos muy ay bureau régionaux yoo xam ne Sénégal moo ko organisé. Mhm. ma ci santaat yàlla ndax ci ñun la door. gis naa ci tamit ne Union européenne dina ñëwal boppam taxaw fekkee liggéey boobu am na solo. donc yooyu lu ñu rafetlu comme ni ma ko waxee woon sànq euh, mës nga yor département euh, ministère des Sénégalais de l'extérieur tey ci xayma ndax gis nga ne am na yokkute. waaw damay bëgg a wax sax ndax en tant que ku yor organisation des migrants. Mhm. boo xam ne dafay non seulement jéem a gëstu ci liggéey bi mais tamit dama boot kuréel bu ñuy wax CSD collectif de Sénégal de la diaspora ñu nekk ci ñeent fukki réew ak juróom. Mhm. Euh, doyloo ma ma yor seen kàddu fii ci Sénégal mhm. may xam donc au jour le jour si lan la ñu nekk ak lan la ñuy dox lenn rek laa bëgg a wax mooy kenn mënul wax fan la toll ak fan la tolluwul ndax migration mooy loo xam ne day yëngatu jamono bu nekk mhm. saa yoo tegee benn tànk ba sant yàlla ne avancé naa bu ëllëgee dina am fukki tànk yu la puus ba ci gannaaw comme ni gannax di def nga war a euh, jowaat dëgërluwaat avancé waat mhm. mais noonu tamit la amee ay opportunité maanaam ay bunt yoo xam ne yu am solo la yuy defar suñuy réew ak réew ya nga xam ne fa la sénégalais jëm ndax migration day lu jaadu ci àdduna donc loolu moo tax pour nga taxaw tuuti wax ne eh, avancé na wala deltu na gannaaw da ngay tardé sa bopp rek ndax say problème ñu ngi taxaw te rek si war a nekk au jour du jour en temps mm-hmm. ñu gis ne mbas mi tamit euh, moo ngi fi xaw na fee yàgg ñenn ñi jàpp ne mbas mi sax euh, dafa ubbil bunt ñu bëri ñu jaar ci géej gi ndax yow li ni mel benn constat bi nga def. waaw man damay bëgg ñu xam ne ñiy dem di jaar ci géej gi pour émigrer lu ñu fas yéene la woon bu yàgg décider ko ndax xam ne seen dundin fii xëy na moo neexu ci ñooñu ne dañu am xel di xalaat xel boobu ñu am moo leen di may ñuy xool ndax géej gi dal na. pour ñu mën a tukki wala ndax géej gi dalul ndax lu gën a bëri fa la ñuy jaar. loolu mooy tamit ñu xool ba xam vigilance bi du côté bële garde côte yeeg yooyu ndax bi mbas mi taree ba tar ñooñu taroon nañ leneen lu dul ay garde côte donc dañ ci profité woon. Mhm. mën a jaar ci yoon yi waaye bu doon rek ndax mbas mi rek la. kon xam nga kenn du jóge ci pays Afrique yi dem foofu ndax foofu lañ fa gis ci ay dee kenn xamul ay junni junni nit la. Mhm. kon boobu duñ fa doon dem. te it demoon nañ ba xam ne migrants yi fa nekkoon ñi ci amul woon kayit nekkoon ci jafe-jafe donc c'était pas. loo xam ne luy appartenir la. Mhm. wante ku fas yéene dem nag moment boo gisee ne possible na da daw dem. Mhm. donc noonu la fa demee woon. tey jigéen ñi tamit euh, bari na luñ leen ci tudd ci wàllum migration euh, mu doonoon sax benn sujet bi nga xam ne yow mii euh, mës nga ci communiquer bu yàggul tey lan nga jàpp ne mooy enjeu bi lu tax jigéen ñi di gën a bëri di di wutali tugal. waaw jigéen ñi mësuñoo jóg ci tukki. Mhm. yàgg na xanaa kay bataaxal yi bind ak ñiy def étude di càmbar. Mhm. ñoo daawul xool jigéen bi ndax dañu jàpp ne rek e est dépendante maanaam da ki ko yóbbu kooku rek lay topp muy borom këram. Mhm. ndax war nga xam ne sax jigéen fu góor nekk jigéen nga fa jigéen góor mënul dëkk fenn fu mu àndul ak soxnaam. Mhm. fondamentalement foog mu jege si kon ba góor tukkee rek ca la jigéen tukki ba léegi. xanaa léegi kay dafa fés. dafa fees ndax jigéen ñi tam dañuy demal seen bopp ndax à l'origine demoon nañ sëy bi ñu nekkee étudiant am lijaasa génn nañ yokk seen xam-xam bi ñu nekkee ci réew mi am lijaasa am xam-xam réew mi u leen génn nañu liggéey ci système Nations Unies liggéey foo dem ci àdduna bi jigéenu sénégalais yaa ngi di ay kilifa yu mag a mag am xam-xam bu rëy rëy rëy ma siy profité di ñaan état du Sénégal nañu jël xel li xam-xam yooyu te bàyyi xel jigéen ñooñu ndax seen réew donc loolu jigéen yàgg naa dem. Mm-hmm. mais tey li ci gën a yokk ba nit ñi gis ko. Mm-hmm. xëy na demin bi la façon bi ñuy demee. ndax dugg nañ ci irrégulier bi ñu ngi dugg ci gaal yi ñu ngi dem ci yenn réew yoo xam ne gënul sans protection sans accompagnement looloo ko fesal moo tax études yi commencé bàyyi di ci bàyyi xel mais jigéen naka jëg dëgg yàgg na ci mu am tamit euh, li ñu duppee traitement de l'information euh, ñu gis ne euh, média bi dafay am na nu muy traité question migratoire yow ngay actrice nekk ci secteur bi ban jàngat nga ci def ndax jàpp nga ne ñoo ngi gën di sensibiliser nit ñi ci mbir mi waaye di gën di xamal nit ñi lan mooy migration walla ban jàngat nga ci def waaw léegi tooñ naa leen ci nasoraan nasaraan <laughs> wax naa leen ni benn yoon de man ngeen may woo at bu jot pour ma wax migration waaw mais terewul ki nga xam ne nii man moom laa jëkk miin ci wàllu migration mooy journaliste bi Modou Mbacke ñaa ci yéen laa ko xamee mm-hmm. mu di ci liggéey tam liggéey bu rafet bu fu mu nekk ci loolu lay topp mm-hmm. donc yéen itam dindiw leen ko certes ci seen euh, tablette yi mm-hmm. wante na gën a yokk parce que boo défriché dara nekk ci pionnier maanaam bokk suñu si jiitu da bu continuer di ci raw non seulement ngeen yaatal émission yi man gis naa benn jigéen buy présenter émission ci télé une heure lañ ko may par semaine mais suñu wax day gaw gaw gaw gaw tellement li mu am ci information dafa bari te amul temps bu mu ko génnee. parce que nag nañ xam ne géopolitique mondiale bii économie mondiale mu ngi reposer ci mobilité ci la teg boppam dafa am ñu nekk fii di liggéey fële am ñu nekk fii di xeltu fee am ñu loo xam ne keko am yow amuloo ko am lu nekk fii te nekkul forcément nit ñi dañuy def échange donc nañ xam ni moo migration moo yore lépp développement économique réew yépp même en matière de santé ak matière boo mën a jël loolu daf ci am solo su ko defee nag. Mhm. ngeen gën a yaatal ba pare da ngeen di nekk ay acteurs yu incontournable mhm. parce que bu ngeen di teg waxu ki nga xam ne mooy dem ki bëgg dem ki demoon ba dellu si réew ma ko war a accueillir ak réew mi mu jóge ñuy waxtaan. fokk dina am lu génn lu feeñ lu baax lu mën a régler problème yi loo xam ne xëy na politique migratoire yi jëlu ko. Mhm. wala réew mel ni suñu réew mi nga xam ne suñu politique migratoire validé guñu ko. Mhm. dinañ si mën a sukkandiku pour gën a renforcer seen document. mais daal bu ma sañoon presse bi gën a yaatal mhm. taxawaay. et justement ci lu néew loolu nga gis ndax gis nga ne ñoo ngi déconstruire cliché yi yuy jël aspect négatif rek teg ko ci question migration. waaw loolu nag dafa doon lu am am am solo loo xam ne. Mm. man dama ciy wax baax a baax a baax a baax a baax parce que migration mhm. non seulement dafa baax mais fu ñu bëgg a teg migration africaine new fa ndaxte toute l'Afrique seen migration boo ko xayma benn migration Mexique jëm États-Unis moo ko gën a fort mhm. kon kay ñun sonaluñ kenn te li ëpp ci migration africaine biir Afrique la jëm mhm. tuuti moo ci jëm bitim réew mais dañ ko bàyyi seetaan ko ba mu nekk lu salte ci bëtu nit ñi wala lu ñaaw ci bëtu nit ñi ku ku jóg ne toog leen toog leen te bu ñu wax ak nit ñi nit ñi ay doomu aadama lañu il faut leur parler échanger ba pare nañu fiir ci suñu ay doom mhm. bu ñu ko bradé suñu ay doom nañ ci fiir ba nga xam ni bu ñuy négocier ak keneen ki dina xam ne valeur lañu téye ci suñu loxo xam naa li ñu war a wax yëpp du du xaj ci sa émission parce que ay documentation yu bëri lañ ci yor di di gëstu ndax xam mooy suñu cër. dégg la mënuñu nekk ci benn niveau de responsabilité ci réew mi. Mhm. àggal rek tëdd suñu kër. man gaw mën a jaadu na. Mhm. li ñu mën ak li ñu xam dañ ko war a restituer mais aussi li ñu capacité capacité wu jëlee ko ci carnet d'adresse boo xam ne xëy na bu ñu nekkul woon ci niveau de responsabilité boobu duñ ko am. Mhm. dañ ko war a delloo réew mi. loolu mooy suñu coono loolu rek moo tax ñuy dox. madame la ministre Ngoné Ndoye ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di sant bu baax di leen encouragé.